sister <laughs> ah yow love you gi ngay re waaye yow I love you ngay re ah kii nag am na koy coxataan am na ku am na koy coxataan lii du lii du reetaan kase am na ku lay de ña koy gërëm merci beaucoup Gré euh, dañuy dem euh, seetaan li nga xamante ni moom moo di rubrique TikTok juste après euh, ñu dalal invité kenn mi ngi en retard gisagun ko loolooy wane ni wax dëgg yàlla match bi demee na boor ndax bu ñenn ñi gënee am pas-pasu teel a ñëw pas-pasu teel a taxaw c'est c'est-à-dire que ñooñu a mën mën a gagné ñi a gagné moom di ngeen leen xam léegi-léegi du ma leen wax kan la ci ñoom mais di ngeen leen xam dem seetaani rubrique TikTok juste après kenn ci ñi nga xamante ni tarkalla macha allah buñ ko dalalee gis ngeen ko léegi ci image bi fii dina daal di neex si c'est bon on peut regarder rubrique TikTok et c'est à l'instant. C'est parti boy. ngeen continuer seen génn génne mëcc bu dee da ngeen bàyyante nga wax ko ko nga noppaliku ma noppaliku waaye man j'en ai ras le tu comprends pas wolof. yow iñaan nga. yow euh, tu habites où. Liberté, c'est extension.

ayca ja jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup Gré euh, ci rubrique TikTok boobu nga xamante ni Leuz mbokkum yaay lamp moo koy indi chaque fois euh, di ci jàllale ay mbiram ndax Leuz nag ku doy waar la Leuz day jékk saay rek sélectionné ñaari xale yu bees tàq rek yónnee leen léegi Leuz yow boo boo bàyyiwul li nga nekkee nii da nga yaakaar nit ñi xamuñu ko xam nañ ko de dañ la bàyyi ci biir gaañ xam naa di ngeen ni xëcca tey euh, lan la ñuuxit di wut ci plateau bi ak lu xew ba ñuuxit dalal fii xam nga ñoom dañuy dëkkmal benn match demain